بمجدو سيح عرم جيد سوامام لايتاد بميساتو انا رابل دبتاي مخامل الدكبي لانتو موم سوني باي دكفي سوني مام دكفي نب دسي نو نكفي سيح مودو جي نكتوبا سري مصفا جي نكتوبا نون خالي نو نكفي دكبي من نالا وحمي أبونا تيميرات سيغور فيلوغو فك أبو جو فيلوغو فك أبلاي واد فيلوغو فك مكسال فيلوغو فك politique yagna ak nun mais dama lay wax ne

te bureau bi ñi watee mi ngi fii ci biir Wourkougne ñu wate un fenn numéro un la ñuy watee fii ko gagné 100 pour cent may xamal président Macky Sall ak ñi mu àndal ci département Mbacké man Serigne Alhaji Gueye maa àndoon ak yéen liggéey bañ egg ci 2019 juróomi weer dese leen sones baa ngi nii amuñu fun jëm xale yaa ngi nii defuñu dara jigéen ñaa ngi nii taxawalu amuñu projet amuñu financement amuñu dara may wax askan wi ne bés nekk tay dama démissioné affaire dama démissioné affaire ma bëgg aduna bépp ñu xamné ma sama set conseil démissioné affaire si Abdou barou dori honorable député na nga wax pap Diop ne ko dama démissioné ngir yéen du xaalis du alal dëkk bi la bëgg ngeen soxali ko mun taxa sàmm li mu wax lay delsi mun taxa sàmm li mu wax ci lay delsi nun bëgguñu alal ndax suñu aaja faju na dañoo am ay am ay doom am ay pël am ay séeréer ñuy dox ci jaan yi di dox ci lëlëm gi di ndox mu bon amuñu dara loolu lay xeex mais xeex ma li may delsee ci yow say bokk laa àndaloon di politique mu leer nañ ay say bokk ñu sant Mbàkke te man damay sukk damay raab damay sumi sama mbaxana damay woyof tooyu waaye nag kenn du ma jëndu njaam damay bañ mu ndax sama maam Cheikh Adama Gueye bi muy xam Sëriñ Tuubaa li mu war a xam lépp xam na ko ci alxuraan ci xam-xam sëriñ bi dafa am lu mu am Cheikh Adama amu ko mu bàyyi lépp topp ci ginnaawam loolaa leen ànd ak yéen kon na ngeen ko xam politique nag amul sentiment ay calcul la ak intérêt ay calcul la ak intérêt sama intérêt jël nañ ko jël intérêt askan wi jël sama ak ak sama yelef jël ak askan wi ak seen i yelef maa ngi lay xamal ne dëkk bii boo fi defee lu jar ma ànd ak yow danaa ko gagné 100 pour cent boo ko defut naa la wàcc àll ba. dëkk bii laa gëm ñi fi nekk laa gëm ñi ma àndal laa gëm. dana ànd ak yow nag mais anuma ak yow ci kenn anuma yow ci taalibe anuma yow ci këriñ ci politique la ànd ak yow. su dee taalibe am naa ab bu dee jàkk sama jàkkay baay jaa nii. bu dee daara alxuraan am naa daara la nga xamante ne si sëriñ Moustapha waxoon nanguñu ko te jamono Abdoulaye Wade laa lay wax soo ma defee lu ko jar ma defee lu ko jar soo ma defee lu ko jar ma wàcc la. mu leer tey luñ bokk ndax dëkk bi suñu dëkk la su demee ñoo ko moom bu demul ñoo ko moom dëkk bi nag dara néew fi kon honorable euh, député si Abdou Bara Dolly taxawal ma ci waa dëkk bii pël ak séeréer si ndox mi amatuñ ko séeréer saa ngi nii ay 4 kilomètres mënuñu am i teewoo ay 3 kilomètres mënuñu am i teewoo courant bi boo demee Nasru 4 km. la nga dem Madina 4 km. la nga dem Tip 4 km mu defa bax daf ñu wër nomba kon lolu jaru. kon lolu jaru. Trawo bi. Trawo bi ngay gis Singor defu ko fi Abdou Diop defu ko fi Abdoulaye Wade defu ko fi Jamono Lamine lañ ko mayon Serigne Bassirou Mbacké keroog bañ ko mayee Serigne Bassirou Mbacké toit bi yónnee to trawo bi folet na bàyyi Modou Xare yabal Serigne Bassirou andal. ñëw fii ci sama kër bàyyi ci sengu fi ne sëriñ Bassirou taw fi ne toit bi ndox mi nañ ko fii ci sama penk naan nañ ci juróomi ci naanul nasru naanul xëy nga naanul kon sëriñ Bassirou lu amoon ñëpp ñun defal nañu ko maa ngi jiital sama nuyoo ak sama siyaar ci xalifa général di murid murid sëriñ Mountakha te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér man fii sama kër la ndax sëriñ Mountakha lan ma joxoon mu yóbbu ma daaru nam Saalum lu ma am moo ko def si man kon bu ma ñëwee dëkkub sëriñ Basiiru di sëriñ Basiiru di sëriñ Muntaxa di sëriñ Touba ko ñëw naa sama kër li ngeen fi wax lépp nag dégg naa ko waaye sama yaram dafa gën a daw ndax li ma gën a jaaxal mooy làmp yii fi waroon a nekk te nekku fi man mii di wax ak yéen wote naa ko Assemblée nationale xaalis bi génn na kon état bi ñoo ko lekk te pare naa ko leen bis bii jàll laaj naa ministre bi yor mbirum courant mi mu xamal ma ni ma fii nga xamante ni mooy wurku di daaru géy courant bi tàkk na te lamp yaa ngi nii tàkkul kon la waxoon dara amu si kon maa ngi interpellé chef de l'État di wax ministre bi yor mbirum courant bi lam waxoon assemblée nationale ni courant bi tàkk na xaalisu courant bi fan la dugg na ko leeral ñu wax ko ñu ñëpp askan wi ndax fii ma ñëw tey ji lamp yaa ngi nii amul benn courant bu fi nekk te war bi sa kon na seen xel dal en tant que honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly seen avocat maay avocat de peuple maay député bu ma dellu assemblée nationale mois de octobre bu neexee yàlla balaa décembre bi seen làmp dina ñun nag président Pape Diop lañ àndal ñun ay gor lañ ay taalibe lañ taalibe Serigne jàpp naa ne sëriñ bi. li ngeen wax fii ni yéen faloon Macky Sall waaye lam waxoon ak yéen defu ko moo tax muy gënt del ci ginnaaw Macky Sall jërul dara ndax nit ku sàmmul kàddoom la nit na bu sàmmul kàddoom du julit du murit du gor kon kooku bu ngeen ko bàyyi yéen a yey ndax Sëñ Tuubaa ngeen gëm-gëmu leen keneen kon tey juróom-ñaari conseil APR yi nekk fii te Sëriñ Alaaji Gay leen muy juróom-ñaar nekkoon si Macky Sall nekk commune Typ ñom ñep démissionné bis nek tay bayyi Macky Sall ñew fi xam ngeen ni kon leer na leen ni fofu ngeen nekkon baaxul mais yalla dogal na bi ngeen ko télé xam avant 2019 ndax bëgg nañ bu jëlé réew mi fi ñu def tëli inshallah allah di gën kon nak dama leen di sat leen gërëm ndax dëkk bi li fi nekk lepp xam nañu ko na ngeen japp ni ñun ak dëkk bi ak duyo lañ yamale bu neexee yàlla danañ si bay suñ waar ba lépp loo xamante ni doyooli am na ko yeneen dëkk am na ko dëkk bi dana ko am ndax dëkk bi dëkkub sëriñ Touba la ku ko deful defuloo Serigne Touba. bu neexee yàlla dinaa leen woo audience boo xamante ni yéen ñi ñëw a président Papa Diop lépp lu ma man sama doole dinaa ko def lu ma mënul dinaa ko wax bu ko jëlee réew mi dana ko def incha allah kon Serigne alaaj maa ngi lay gën a loxo di xam ni àll ànd nga ak gor ànd nga ak taalibi Serigne Touba. te bu neexee yàlla du ngeen ko rëccu ndax duma ñoom te man duma man kon wér na leen ni bokkuma ak Macky Macky tamit bokku tak man bokku tak pap Diop réew mi dana fii dana soppi ko ba ngeen xam ne dugg fi te leer na bu ma génnee ñoom danañ tiit ndax dañu def loo xamante ne waroon na ko def ba yàgg defuñu ko woon ndax fu ma jaar ndax fu ma jaar ñu jaar sama ginnaaw mais maa ngi sant yàlla di gërëm si Ahmadou Bamba tey ku ne xam na ni boo demee ndaamaatu ba ma fa yóbboon ndox mi ci suba ga lan fa yabal ay nit daan defal ndox moomu noonu kon fii nag comme wate naa bis bi xaalis bi maa ko génne assemblée nationale wate ko muy nangami million yu jëm fii xaalis boobu noonu daan laaj fan la xaalis boobu dugg kon ministre de la bi yor mbirum courant bi man honorable député maa lay interpellé di wax ni Touba Daaru Gueye wurkuñ bi nekk si commune type bi nga waxoon ne am na courant du dëgg amul courant kon courant kon Serigne Alaaji fii du ma la fi ndax bu ma la fi rusloo maa ngi wax sëriñ si fi toog man seen mbokk laa seen mbokkum taalibe laa ñoo bokk sëriñ Touba na ngeen ma jàppe comme seen bopp te xam ne lépp loo xamante war na am si dëkk bi bu ngeen ma ko waxee dinaa taxaw ndax ma doomi dëkk bi laa.